première contrat. mais lâchage bi important mooy ci biir Yewwi que des gens décident de choisir leur voie. lâchage boobu moo important mais sinon euh, Aïda Mbodj Habib Sy euh, Maïmouna Bousso Déthié Fall euh, ñoom ñëpp ils sont avec Sonko Ousmane Sonko Malick Gakou ak yeneen sympathisants yoo xam ne voilà ils ne sont pas dans Yewwi mais. ils ils le soutiennent ah Abdourahmane Diouf. n'ira pas au par exemple. il n'est pas dans Yewwi mais toi là euh, Maïmouna Maïmouna xam nga moi je veux euh, defe naa ah, dañu am une lecture ça donne une certaine cohérence parce que politique quand même il faut ñu am lecture lecture ku ci nekk mën nga am sa lecture benn individuelle euh, politique moo koy maye mais day am une certaine cohérence dans la lecture non tu peux pas mettre tout le monde même sac fii élection Sénégal bu ñu demee gis nañ ne 4 août liste ñoo fi représentative ñi si des ñëpp ay plus fort reste bu ñuy am ay plus fort reste la ñuy am ça quand moo fi am Sénégal amaguñu élection bu ëpp loolu nga xam ne am nañu plus de quatre forces représentatives ça moom la am cela veut dire bu ñuy wax Sénégal tamit du ñu jógee ñu rek dem dañuy liir man je t'ai dit citeel naa la Karim Wade yow yaa wax ne au moins am na 500 voix. PDS minimum bu deewee ba dee am na. 500 voix waaw yow yaa ma xam nga kooku am na représentativité. am na 26 députés à l'Assemblée nationale. ils ont minimum. non déglu rek ma wax la. rek bàyyi man maay lim pourquoi nga bëgg ma jëme fële. ñi dem dialogue bi laa la wax Khalifa Sall day dem dialogue ñaata voix la nga wax ne am. non Khalifa Sall mooy borom Ndakaaru. waaw d'accord Idrissa Seck. Idrissa Seck. waaw il a un électorat il pèse minimum huit cent mille voix. d' xam nga ñooñu ñett ñëpp dañuy dem boo boo fii génn pour beneen politicien bu nga xam ne am na fi appareil am représentativité démontrer que ne dem na Sonko la amul beneen ñi si des ñëpp ñi ngay wax fii yëpp dañuy lang boo ma ëbdalee Abdourahmane Diouf nga xam ne moom ak moom moom ak P euh, RV ñoo àndoon législative. le club ñoo àndoon ak ñeneen ak ñoom ak c'est la coalition ah, aar plus fort reste la ñu am aar la woon. kooku boo mënee nga xam ne moom mu demul sax assemblée. boo mënee kooku danga koy lim ci ñi am représentativité. bàyyi euh, non bàyyi na rek am représentativité. Euh, bàyyi bàyyi des candidats déclarés qui refusent d'aller au dialogue. non je te dis no ñi dama la bëgg a wax ne xam nga ñan ñoo fi candidat déclaré mbaa ñu nga xam ne xam nañ ko te demul dialogue nañ leen lim nañ leen leen lim. le PUR n'y va pas. le PUR amagul candidat. waaw mais le PUR en tant que dañoo prononcé wu nañu. prononcé damul dialogue non pro dama lay laaj est-ce que prononcé wu nañu. si damuñu dialogue. non non dama lay ne prononcé wu nañu. Déthié Fall prononcé wu na. mu oh, il est candidat déclaré. def na congrès pour la première fois non déglul déglul déglu ma la déglu ma la benn par benn ñooñu. Bougane Gueye damul dialogue bugguma sax dugg ci débat boobu xam nga ñoom yow xam nga. xam nga ñooñu xam nga lu ñuy représenté. Aïda Mbodj damul dialogue. non non dama la ne xam nga ñooñu lu ñuy représenté vraiment xam nga ñooñu lu ñuy représenté duma ci débat sénégalais. ils se sont